الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله ويقول أيضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى وقال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى mbokk yi ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo ñuy soññ pour ñu moytandiku feebar bu bon boobu nga xam ne ku mu dal li lay tere dugg safara rek mooy dee feebar boobu mooy ban mooy feebar bi waa jamono feebar tey bàyyiwul kenn nag lu bari ci ay njiit ci wàllu àdduna dugg nañ ci lu bari ci ay njiit ci wàllu diine dugg nañ ci lu bari ci ay imam dugg nañ ci lu bari ci ay directeur dugg nañ ci lu bari ci ay borom kër dugg nañ ci góor ak jigéen mag ak ndaw néew na ku ci mucc feebar boobu ñuy tuddee topp bànneexu bakkan topp sa bànneexu bakkan li bakkan bi bëgg rek sa xel xalaat ko bakkan bi bëgg ko xol bi rafetlu ko nga jàpp ne baax na léeg-léeg sax doomu aadama du yem ci baax na rek waaye day woo nit ñi sax jiital di leen ci jëmee parce que lu tax parce que bànnee xam nangu na ko xam ngeen ne tey sunu diina ji muy lislaam lu baree baree bari ci ay bànneexu bakkan dugal nañ ko ci léeg-léeg nga ni benn waay yàlla nee na yonent bi nee na mu ne la mais man nii laa ko gisee xoolal ay bànneexu bakkanam la lay indil wala nii laa gisee diw def ko parce que bànneexu bakkanam nii la gisee diw def ko mu neexe ko noonu mu jële ko noonu sunu borom subhanahu wa taala def ñoo soññ ci qur'an mu ne ñu wala tattabiu lhawa bu leen topp bànneex bu leen topp seen bànneex dafa mel ne dañ ko laaj ne ko borom bi bu ñu toppee bànneex lu mu ñuy def mu ne fayu dilluka an sabilillah soo toppee sa bànneex da lay réeral da lay sànq ci yoonu yàlla moo tax musoo gis ku topp bànneexam nekk ci njub musul nekk munul nekk lu tax ndax bànneex yenn saay li la neex day dem ba nga koy jaamu day dem ba remplacer ci yow place bi yàlla waroon occupé sa bànneexi bakkan taxaw foofu su la waxee defal nga def bu la waxee bàyyil nga bàyyi bu la nee tëddal nga tëdd bu la nee toogal nga toog moo tax borom bi ne afaraayta man ittaxaza ilahahu hawa xoolal waa ji nga xam ne yàlla mooy bànneexi bakkanam xool leen tey ci dundin gii ñuy dund kenn ku nekk doo xool li neex yàlla waaye da ngay xool yow li la neex ci sa lépp nag ci sa lépp lu néew ci ñun ñooy xool li neex yàlla ñu def lépp ci ñun lan la ñuy tànn li neex seen bakkan waaw man de mbir mi nii laa ko bëggee dafa leen leen ma ko nii donte ne dafa wuuteeg njubal yàlla ñu defal la ko noonu booy takk soxna tey ki bakkan bi gis mu taaru ci yow rafet donte ne yàlla nee na la bul takk jigéen ji kooku sa bakkan bëgg moom ngay takk bu fekkoon ne jigéen la góor ñëw di ko labat di ko tànn au lieu mu xool ban góor la yàlla wax day xool góor gi ko neex bakkan ba bànneexu bakkanam mu daal di jël ci wàllu col noonu la wala tey col gi góor ak jigéen nag xool leen jigéen ñi Sénégal nu ñuy solo ndax loolu seen bànneex la wala yàlla la bëgg yàlla moo ko bëgg xool leen góor ñi ni ñuy solo ndax yàllaa ko bëgg wala ñoom seen bànneex la moo tax topp bànneex yi bakkan mooy feebar bi gën a bon ci àdduna bu doomu aadama topp moo tax yàlla ne bànneexi bakkan day dem ba occupé ci yow nekk sa yàlla xoolal ki nga xam ne bànneexu bakkanam mooy yàlla yàlla ba muy tàgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam ngeen lu ko yàlla tagge yàlla nee na du wax lu ko neex maa yantiqu anil hawa toppul bànneexu bakkanam maa yantiqu anil hawa du wax rek lu ko bànneexu bakkanam déedéet li ma ko yónni li ma yàlla man yàlla li ma yónni yonent li ma ko wax lay wax li ma ko tere mu daal di koy bàyyi ba ci yonent li ko yàlla tagge mooy toppul bànneexu bakkanam ci liñ ko jox in huwa illa wahyun yuha man yàlla li ma ko waxloo lay wax li ma ko waxloowul du ko wax allahu akbar te xoolal pouvoir bi mu am muhammad xayru xalqillah moo gën ci mbindee fii mustapha moom la yàlla tànn al muxtaar yàlla ko tànn mustapha mu setal ko mu segg ko yàlla yónni ko terewul li ko yàlla wax lay wax li ko yàlla wax loowul kenn musta munta muusa ak waane ba mu wax ko ci jamono yonent yàlla Muusa dafa am benn waay bu tudd bal an bal am bun baura yàlla daf ko mayoon kattan may ko xéewal may ko xam-xam xamal ko lépp yàlla def ko xaritam mu nekk xaritu yàlla su waxee yàlla moo wax su dégloo yàlla moo déglu su jàppee yàlla jàpp su doxee yàlla dox ànd ak moom mu nekk ci loolu moom waa jooju nekk njiit nekk royukaay nekk ku baax nit ñi di ko jublu guddeeg bëccëg muy ñaan aajo yi di faju yonte yàlla Moussa war a xeex ji ak ay yéeféer yéeféer yooyu dajale ay mallette xaalis ay valise or ay valise ci jamaa ay valise ci urus ay valise ci xaalis ñu ñëw ci moom nitu yàlla boobu tudd bal am bun baura ñu ne ko dañuy ñëw ci yow pour nga ñaanal ñu dañuy xeexi jeeg Muusa yonent yàlla bi mu ne leen xanaa da ngeen dof man may nitu yàlla kii di yonent yàlla ngeen bëgg ma ñaan ci kaw gaay ne ko waaw ñun xam nañ ne yow nitu yàlla nga moom yonent yàlla la waaye nag xanaa gisoo malet yi ñu indi xanaa gisoo xaalis bi mu ne leen xaar leen ma xool allahu akbar xaar leen ma xool dem leen ma xool allahu akbar gars yi daal dem renforcer waat xaalis bi fu ñu indi woon benn ñu indi ñaar ñu ñëw ne ko ndax gis nga mu ne may leen ma waat tuuti nga seytaan mayaat leen ma ñu ne ko ñun soo gisee ñu renforcer lii yow nitu yàlla nga soo ñu ñaanalee ba pare rek mun ngaa ñaanaat yàlla yàlla baal la comme yow yàlla da lay nangul tee ngaa jël rek nga ñaanal ñu ñu gañe Muusa suba nga ñaanal yàlla mu baal la benn bàkkaar kese nga seytaan nu mu lay dévier ci yoonu yàlla di la won poñetu àdduna sunu borom subhanahu wa taala mu ne wattulu alayhim yow muhammad jàngalal nit ñi nettali leen histoire bi suratu araf ku jóg nga dem xooli kaamil bi wattulu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fàttalel nit ñi muhammad histoire bii waa ji nga xam ne maa ko xamaloon samay aaye won ko lépp may ko lépp ba mu mujj a nekk sama xarit man yàlla waaye fan salaxa mu simmeeku ca la ma ko mayoon kafara biha mu weddi ko wa tarakaha waraa zahrihi mu sànni li ko yàlla may xoolul li mu am waaye mu xool léegi poñetu àdduna mu xool kat-kat yi mu xool pasero yi mu xool terrain yi mu xool immeuble yi mu xool malade yi xoolatuma man yàlla tabaraka wa taala fan salaxa mu simmeeku ci sunu borom mu ne fattabaahu shaytaan ba mu simmee ko ci mbiri rek yàlla nee na seytaane topp ko ne ko jëlal bal am bun baawraa gaa yi ñëw troisième jour ne ko loo gis mu ne amul problème indi leen dugal leen affaire yi ci ci ci pantre bi ngeen tëj ngeen dem dinaa ñaan yàlla mu tëdd guddi yàlla ne ko bul ñaan attention bul ñaan mu ne ah jël naa ko ba pare damay ñaan rek jël naa ko mu bàyyi ba ñaari armée yi jàkkaarloo Moussa taxaw yéeféer yi taxaw mu jóg bi mu ŋaangee ne day ñaan yàlla xëcc làmmiñ bi deux mètres deux mètres sunu borom subhanahu wa taala mu ne fattabaahu shaytaan fa kaana min algaawin mu bujj nekk ci ñu beew walaw sinaa la rafanaahu biha walakin axlada ila al ard wattabaa hawaahu fa kaana fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmilhu yalhas yàlla nee na xam nga fu mu mujje ba ma bàyyee man yàlla toppi bànneexu bakkanam topp seytaan mu mujj a nekk ci ñu bew ndax bew moo ko yóbbu mu dem di ñaan yonent yàlla yàlla nee na bu ma neexoon danaa ko yëkkati waaye comme dafa tànn topp bànneexu bakkanam ñaan ci kaw yonent yàlla yàlla mu ne xam ngeen léegi misaalam lu mujj ginnaaw balaa yàlla xëccee làmmiñ bi dafa mel ne xaj day yalkat fu mu toll su maree day yalkat bu maro bu marul day yalkat dafa mujj di yalkat mel ne xaj bu mar naan xaj bu sonn foofu la waa ji mujjee xoolal li ko yàlla defaloon ci xéewal lan moo ko dugal lii mooy topp bànneexu bakkanam kon jullit du topp say bànneexu bakkan ci luñ la mën a wax ci luñ la mën a indil rawatina ci sa wàllu diine xoolal yàlla subhanahu wa taala lan la la sant nga def mais tey ñun amatuñ ci loolu diw moo ma sant damay def lii laa gis damay def lii lañ ma wax damay def xooloo ndax dëppoo na ak ni neex yàlla xooloo ndax dëppootul ak ni neex yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu ne yow yonent yàlla muhammad dalika masalu lqawmi allazina kazabu bi ayatina képp ku weddi sama aaya lii rek mooy sa misaal lii rek mooy sa misaal mooy yow mi weddi aaya yàlla subhanahu wa taala sunu borom di tagg ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ba topp ñu seeni bànneexi bakkan mu ne fa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa ku bàyyi say bànneexi bakkan topp li yàlla bëgg topp li yàlla indi roy yonent yàlla muhammad yàlla nee na ëllëg yawmal qiyaam ma dugal la ci sama kër googu tudd aljanna yal nañ ci yàlla dugal aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله لا بد أن نعلم أسباب اتباع الهوى mbokk yi ci yàlla foog ñu xam sabab yi nga xam ne moo tax topp bànneex tasaaroo ci àddina topp bànneexi bakkan tasaaroo ci àddina bi tasaaroo ci dëkk bi ci gox yi ci biir kër yi ci place yu nekk mu topp góor ñeeg jigéen yi mag ñeeg ndaw ñi ñi xam ak ñi xamul lan moo tax bi ci njëkk mooy adamu taawidi ala dabti alhawa mundu sigari ñàkka yeew sa bakkan ñàkkoo tënk dépp bi nga nekkee ndaw doomu aadama bu feralul bakkanam li Busayri di wax an nafs ka tifl bakkan ak liirayam liir buñ ko feralul ci sow du musa fer dañ koy bis day ñëw ñu feral ko mu fel far force noonu la bakkan mel soo feralul sa bakkan bi depuis nga nekk ndaw ci say bànneexi bakkan da ngay màgg di topp bànneexi bakkan paa yi ngeen di gis tey ñuy tux cigarette ak màgget yi ba ñu nekkee booy la woon màgget yi ngeen di gis tey ñuy naan sàngara ba ñu nekkee xale la woon ñi ngeen di gis tey ñuy futteeku def yaramu neen mënuñoo muur seeni awra nekk ay meer nekk ay jigéen ba ñu nekkee woon ay xale la ñàkk a yeew sa bakkan ñàkkoo tënk ci li neex yàlla soo màggatee dalay topp man shaaba ala sayin shabba alayhi ku nekk jeune ci dara rek màgget ci soo ci màggetee dee ci boo ci deewee dekk ci kon doomu aadama yi foog ñuy yar seen bakkan yi ñaareel mooy mu jaala saftu ahlul hawa wa musahabatihim li tax topp bànneexi bakkan tasaaroo mooy di toog ak ñuy topp seeni bànneexi bakkan ak di ànd ak ñoom olof yi nee nañ wax ma sa xarit ma wax la yow yaay kan saa yooyu topp ñu topp seeni bànneexi bakkan di toog ak ñoom ci grand place yi bu yàggee nga bëgg nga mujj a def ñoom li ñuy def booy topp naankat li nga naan kuy sàcc ngay ànd ak moom léegi nga sàcc kuy fen kuy njaaloo kuy wor kuy def lu bon nga ànd ak moom def ko xarit di toog ak moom bu yàggee nga mel ni moom loolu sax àdduna bi dañ ko xam ba tey bu la police jàppoon ak ñu bon yaa ngi ñoom yéenay bokk jugement da ngay def ak défaut seen yoon nekku ci dañ laa fekk ak ci ñoom ci néeg bi ñu jàpp leen yéen ñëpp yaa ngi ñoom ay bokk at gis ngeen moo tax lu bon baaxul rawatina nag ngay toog ak ñi koy def wala ngay ànd ak ñoom ñetteel mooy daufa maarifatul xaq néew gi mu néew nit ñi xam dëgg wa daaril axira ak néew gi nga xam ne néew na ko nit ñi jublu alaxira loolu tax na bànneexi bakkan tasaaro nit ñi xamuñu dëgg bëgguñu alaxira dara looloo tax bànneexi bakkan tasaaroo ci àddina bi ku nekk li la neex ngay def ku nekk rek lu la neex lu rafet ci yow rek xalaatatoo diine bi lii la yàlla wax lii la yonent wax déedéet da nga naan li man lii laa fekk inna wajadna aba ana ala umma man daal mbir mi nii laa ko bëggee defal leen ma ko noonu ñeenteel mooy taqsirul axirin fi lqiyaami bi waajibihim nahwa saahibil hawa nga gis benn waay buy def lu ko neex loolu da lay jural yow tamit comme waa ji day def lu ko neex nga ni man tam damay def lu ma neex déedéet waa ji day def lu ko neex yow bul ko topp ci loolu waaye defal li la neex ma def li ma neex du noonu kon kër gi day tas su soxna si defee lu ko neex borom kër gi def li ko neex xale yi def li leen neex kër googu fu muy mujje bu dee société la fu muy mujje même bu doon jàkka la fu muy mujje bu dee dëkk la nag day tas ni yee di tasee la dëkk bi di tase loolu moo tax mbir yi yàlla da koo organiser kenn ku nekk doo def li la neex waaye dañuy xool li yàlla bëgg ñu def ko li neex yàlla juróomeel mooy hubbu dunya bëgg àdduna bëgg àdduna mbokk yi tax na nit ñi di topp seeni bànneexi bakkan bëgg àdduna bëgg àdduna loolu tax na tey kenn mënatul jaamu yàlla bëgg àdduna allahu akbar te bëgg àdduna xam ngeen lan moo koy faj mooy bàmmeel rek ku bëgg àdduna du deltu ginnaaw mu lu dul ñu jël boppam bi mbëkkal ko paxum bàmmeel ne ko cabax ci biir mu doog a denc moom bëggul àdduna feebar la boo xam ne amul garab lu dul bàmmeel rek bàmmeel soo duggee bàmmeel rek xam ne àdduna bi nga toppoon amul njëriñ bëgg àdduna war rukunu ilayha maa nisyaani alaaxira bëgg àdduna jéng jëm ci àdduna fàtte alaaxira looloo tax feebar bi muy topp bànneex ku mu dal ci tomb bu mujj bi yow sa àdduna dana yàqu sa alaaxira dana yàqu mbokk yi ñoo ngi toll ci àdduna boo xam ne ci jamono joo xam ne ci waxtu woo xam ne feebar yi jàngoro yi tasaaroo yi musiba yi bari na lan moo ko waral mooy doomu aadama yi wàcc bi ñuy raj wàcc raayu allahu subhanahu wa taala nañu xam ne topp bànneexi bakkan musiba la jullit buy topp day topp yàlla atiu llah wa atiu rasul topp leen yàlla topp yonent bi loolu la yàlla digale wa ma ataakum rasul fa xuzuu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yàlla indil jël leen lu leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen waaye yàlla dafa tëkku wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam xaalidina fiha abada képp ku mooy yàlla mooy yonent yàlla subhanahu wa taala nee na safar nga jëm yàlla yàlla def ci ñun dégg ak topp allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya musabitu alqulub sabit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min xizi dunia wa azabi alaxira اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا